déggal sama yaay maa kin na yàlla la yonent bi teeru fi nga nekk barke Serigne Saliou maa kin na yàlla la yonent bi teeru fa nga tëdd sa soppe maa ngi nii ñu ngi nii ci sa bërëbu soppe ba jëwriñ yàlla na la yàlla defal jàmm amiin amiin yaa rabbi amiin amiin amiin amiin délégué taxawu Sénégal yi wali balaa yal na la yàlla sàmm ci barke Kaabatu Rasul yal na la yàlla gën a taxawal yal na la dimbali ci barke Kaabatu Rasul yal na la yàlla gën a yal na la yàlla gën a

Gracias. laa ilaaha illallah laa ilaaha illallah wahdahu laa shariika lahu wahdahu laa shariika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa alaa kulli shay'in qadiir laa ilaaha إلا الله ولا نعبد ولا نعبد إلا إياه إلا إياه له النعمة له النعمة وله الفضل وله الفضل وله الثناء وله الثناء الحسن الحسن لا إله إلا الله مخلصين مخلصين له الدين مخلصين ba ca neex ak ba ca naqari ba ca neex ak ba ca naqari fii nag ndogal bu naqari la dafay jóg dafay muñ kon loolu mooy loolu mooy gëm yàlla mooy nga gëm li mu def li nga nangu ko nga gëmee ba pare nga nangu ko waaye kon nangu ko nangu ko rek macha allah bii moom sa xel war naa dal wax dëgg yàlla ku sa waajur gën àdduna Sénégal yëpp ànd benn baat bi nga dagg bii ànd ak say xarit ñëw ñaanal ko fii ci kaaba gi macha allah ba pare ñu def tawaaf bii nga xam ne macha allah tawaaf bu yaakaaru la wax dëgg yàlla kon kay xel war naa dal. alhamdulilah jëm Serigne Touba kenn Serigne Touba. jërëjëf yàlla na ko yàgg dama. yàlla na la yàlla sàmm. maa ngi ñaan ci barke bi yonent yàlla nga yàlla nga yàlla nga gudd daal maa ngi ñaan ci barke fii ma nekk. di Kaaba gi di Màkka. yàlla li des sama yaat na ko waaj a jox la nga gudd fan ñaan naa ko dogu naa ko yàlla na ma defal yàlla nga gudd fan. yàlla nga gudd ko yàlla nga ko yàgg loolu yaa baax li dafa rëy barke Seexul Xadim li ma defal dafa rëy loolu yàlla yàlla jégal yàlla nga fi yàgg sëñ yàlla yàlla jégal man na nga fi yàgg te wér rek yàlla yàlla jégal dinañu jégal waaye yow na nga fi yàgg te wér yàlla yàlla ñu wér yow yow bu la neexee sax bu la neexee sax bu gaa yi critiqué waaye bu la neexee ba ñu julli bañ a woon lii nga def rek dafa rëy barke leeru alxuraan yàlla na la yàlla sàmm am naa mbégte de am naa mbégte lool wallaahi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 Namaz da bariyana bakıyor. أصلح ذات بيننا جواد جواد كريم كريم تحب العفو تحب العفو فاعف عنا فاعف عنا برحمتك برحمتك يا أرحم يا أرحم الراحمين الراحمين اللهم اللهم هب لنا هب لنا ذرية ذرية عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا أصحاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا جواد جواد كريم كريم يحب العفو يحب العفو فاعف عنا فاعف عنا برحمتك برحمتك يا أرحم يا أرحم الراحمين الراحمين اللهم اللهم هب لنا هب لنا ذرية ذرية mbokki Sénégal ku doon laajte faali ngoya ngi kii mooy soxna aada seexu yàlla bi waaw waaw kii mooy ponkal bi kii moo mën kii moo ëpp doole kii moo gën a gaaw dama ne déglul soxna aada seexu yàlla bi kii nag moom bu fekkee da nga am jafe-jafe ci sa wàllu wér-gu-yaram dama ne nga am jafe bu la jaaxal lool say mbir tëju say buntu tëju sa lépp daal di tëju kii moo ci gën a gaaw waaye dama laa bëgg xamal li nga xamante ne daf koy faj dama ne danga am ay jafe-jafe ci sa yaram am ay jafe-jafe ci sa wàllu néegu sëy sa boroom kër jaaxal la lool wala sa soxna jaaxal la lool soxna aada seexu yàlla bi moo ci gën a gaaw sa daal di tëju ba loo làmb mu dëgër ngay déposé ay kayit mu jafe la lool nga bëgg tukki mu jafe la lool xëy nag moom munoo ko am te da ngay wër bañ bëgg dee ñëwal seet soxna aada seexu yàlla bi moo ci gën a gaaw léegi nag déglul ma wax la wàllum seet dama ne Sénégal dañoo wër ci biir réew mi war ci Afrique wër ci àdduna bi ñëpp daal di d'accord ne soxna aada seexu yàlla bi mooy dàllinkoor ci wàllu seet moo lay xool dul teg la ci kanamam di la wax sa démb sa tey ak li war a ñëw suba dama ne seet moo ci mën Sénégal moo ci mën ci Afrique moo ci mën ci àdduna bi ma ne te ay cangatam amul fenn bu la dugalee fii ba sang la booy xëy sa yaram daal di ubbeeku ba loolaal mu nooy te foo jublu ñu bil la ay buntu kon nag daw leen gaaw seeti soxna aada seexu yàlla bi mu lijjanti la say jafe-jafe daal di lay teg ci yoon